dem safara bu soobee yàlla ak diw yàlla loo ko booleel yàlla génn ci waccee la ak loola te yàlla lu mu génn loola tabax yàlla ak diw kenn ko wax insha allahu la ñuy wax waaye doon insha allahu wa rasuluhu benn waaye dafa ñëw ci yoon ci yàlla muhammad ni ko macha allahu wa shita lu soob yàlla soob la yow yonent bi mu am yonent bi mer ba kanam gi xoox bët yi mel ne da nga ca toj tàmmaat mu ni ko attajaala lillahi niddan ndax da ngay wutal yàlla natt nga qul macha allah waxda neen lu soob yàlla kese kese kese loolaay am lu njool màkk mënul ku ko wootee ci la ngay wax du dëgg lu soob yàlla rek a wér yàlla bokkul ak nit ñi dara dañoo dem ci benn dëj ànd ak Seydi Aboubacar si Mansour ñuy xaar di xaar di xaar ba yàgg taaw bi ñëw ni sëriñ bi lañ doon xaar waaye dafa guddee nañ suuli góor gi ba ñu yeggee ca armeel ya ba ne cas góor gi ba ne jëyi jëm ci armeel bi seen koy tàllal loxoom di ayyu ñëpp geesu mu ñëw ni man da damaa jóg tardé waaye kii ngeen di dugal ci bàmmeel bi tànn leen aljanna ju ngeen bëgg ma dugalal leen ko ci sëriñ bay ni ko jàkk nit ñëpp ni ko jàkk laata sëriñ bi yow di wax taaw góor gi ni ñokket ni ko sëriñ bi mu ne amul ko sama bàyyi màggatul cinquante neuf ans rek la dund amul soixante ans ay projet rek la fi bàyyi ak doom ñu màggul comme mën ngaa duggalaate aljanna nag dama bëgg nga dekkal góor gi nu ànd ñibbi mu ne ko loolu kat nag yàlla rek a ko man mu ne ko àjjana it yàlla rek a ko man naxante baaxul naxante baaxul te Sénégal war nañoo waxante dëgg naxante bare na picc ndiipaan yi tantan lu bare nañu lool waaw picc ndiipaan yi tantan lu bare nañu yàlla kenn la lam yëlit walam yulat yàlla jurul kenn kenn juru ko kenn associé wul ak moom in kullu man fi samawati wal ard illa aati rahmani abda laqad axsaahum wa addahum addan wa kulluhum aatihi yowma alqiyamati fardan yàlla nee na ci alquran diggante asamaan yi juróom-ñaar ak suuf yi juróom-ñaar koo fi seen ak kumu ak lu mu yor ak lu mu ak lu mu xam lu mu doonul dara lu dul sama jaam te preuve bi da nga ñëw di ko siyaare bismillah bam nee na ma ngi nii yàlla du dee allahu la ilaha illa huwa alxayu alqayum laa taaxuzuhu sinatun wala nawm lahu ma fi samawati wa ma fi lard man da alladi yashfau indahu illa bi idnihi yaclamu ma bayna aydihim wa ma xalfahum wala yuxituuna bi cheyin min cilmihi illa bima shaa wasica kursiyuhu samawati walarda wala yaudu xifduhuma وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين رشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار في خالدون سورة البحر
توسلنا بخير برية إليك توسلنا بخير برية فيا حي يا قيوم يا الله ربنا إليك توسلنا بخير برية إليك توسلنا بخير برية ولا بد من شكوى إلى الله كربتي فما لي غير الله جابر كثرتي وقرعي باب الخير يا رب لم يفل ذاك فرفنا نحو باب درجتي فأنت كريم فالكريم من اهتدى إلى بابه يا من على كل نعمة
فأنت حليم يا صبور لمن جبى فأنا عبد جئت بادي بالتي فلما بدا لي أنه ليس لها الملك وليس الحاكم مددت إليتي إليك بضعف وافتقار وذاقة لتغفر لي يا ربي من كل زلة لتغفر لي يا ربي من كل زلة ويا الله ربنا
إليك ترسلنا بخير البرية
mu ne mu ne ñàkk sikk si Seydil Hadji Malick si ne xam maa ko tudde ñàkk sikk nekk na fi ba jóge fi jàngale jàng julli bay defaru defare xam xamle xàmmee di xàmmeele waaye takku fi xelum doomu aadama ñëpp la bàyyeeg seen bopp nit ñi ku leen di libéré da nga leen di bàyyeeg seen alal bàyyee leeg seen xel waaye nit boo jëlee alalam jël xelam libéré too ko mu ne fa yaa xayyu mu ne yàlla yow miy dund yaa qayyuumu yow mi taxaw te wéeruwoo ci kenn yallaahu yow mi bind ñëpp moom ñëpp te kenn tegu la bët rabbana yow sunu borom tawassalnaa ilayka jokku si naa ci yow jox la sama loxo loxo jaami ñu teg ci sama loxo ma teg ko ci loxo rasulullahi gannaaw ba ma ko tegee ci loxo Cheikh Ahmad Tidiane bi xayril bariyati jaare ko ci ngeen ji mbindeef sakul ana xayra ñu ne alaaji malik koo fonk mu ne ki yàlla fonk ñu ne ko ku yàlla fonk mu ne ki mu may muy romb mbindeefi ëllëg wa shafiahu wa shafiahu yàlla na nga digal rasulullahi mu ramb fii naa ci nun ci liqaa ca bisu daje ba te wa kullu naa képp kenn si wal xibbi ku dul sotti yàlla ba di yonte yàlla muhammad mawsuufun ku ñu melal nga ku ñu classé nga ku ñu joxañ nga yowmal qiyaam bi roobin ci tiitaange xol wa rëhbati ak tiitaange lammi ñëpp ay muuma yowma laa tamliku nafsin li nafsin shay'a wal amru yowma idin lillah aw qaari'atu man qaari'a wa ma adraka man qaari'a yowma yakunu nnaasu kalfaraashi lmabsuus wa takunu ljibaalu kal'ahni lmanfuush fa ama man thaqulat mawaaziinuhu fa huwa fi 'ishatin raadiya wa ama man khaffat mawaaziinuhu fa ummuhu haawiya wa ma adraka ma hiya naarun haamiya xaasiyatu ak xaariatu ak xaaqatu ay tur lañ ci turi bés penc xaasiyatu mooy bés bi nga xam ni ñi amoon xel ba seen xel séttax ba wër leen ñépp la seen xel di gàtt parce que dañuy tiit dañuy tiit ba mel ne kii may bañ a tudd xam nga ci kookay tane mooy ndaw si bañul wujje bañ wujje bañ wujj ba ne du ko laal jëkkër ja takk ñaareel wax ko ko fa ñuy añi mu wàcc fa doom ji boot muus na juutal ko su naan ko noppil sa bàyyi ne daa takk jabar xaasiya ak xaaqa ak xaaria ay tur lañ ci bés penc xaraa yaqraawu xaariun xaraa muy firi fëgg yaqraawu mooy dana fëgg xaariun mooy aji fëgg bés pénc ci def fi dul bàyyi kenn kenn kenn kenn mboolem ñi fi dàq bokkaale yàlla dàq fee wax lu dul dëgg xam nañu daañu dee dee ko gënu def amul la ba loolu misra waxoon ba ko waa keer ne waar ñu mu ne topp leen mu nu dem ci armeel yi dëkk ba yëpp wëq mu yegg si bi ñi tëdd ñu mu ñu ne ko ay armeel lañu mu ne tabax yi ngeen di séen ñoo ko fi defoon te dootuñu fi dellu si haadi quburukum wa haadi qusurukum seen chatt yaa ngi seen bàmmeel yaa ngi ku ci jombiwul dootoo jombi sunu borom ni rasulullahi alqaaria aji fëgg la moom bés tey ni malqaariatu lan mooy fëgg sax wa ma adraka xamala guma la de malqaariatu lan mooy qaariatu ñoom màkke ni ko xaw ma ko de mu ni ko bés la boo xam ne bu yegsee doomu aadama yëpp yëpp yëpp dañuy mel ne bés bu tawee ba jant so ba timis boo taalee lam yóol yooyu yóol xam ngeen yóol yóol yooyu di naaw naan ci làmp ba tar tar tar ñuul yooyu ni ñu jàqlee noonu la nit ñëpp di mel yow ma yakunu naasu kal farash al mabsuuf montagne yëpp yëpp toj nooy nepp mel ne jégano xar bu duuf kële ay min man fuuf yàlla ni fa amaa man saqulat mawazinuhu fa huwa fi aychatin radiya ku ñu yóbbu ca bastil ba ñu produit sa jëf yu baax ya mu dis gann nee na commencé nga dund gu neex bu dootul naqari muy ay chatun radiya mu ne waaye wa amma man xafat mawazinuhu ku ñu peese sa jëf yu bon ya mu woyof toy ñu ku ñu peese sa jëf yu baax ya mu woyof toy ñu peese sa jëf yu bon ya mu dis gan fa ummuhu hawiya kooku tàpp waaye mooy hawiya nga ne xaw ma hawiya de mu ne wa ma adraka xamala gola maa hiya lan mooy hawiya dina mu ne naarul xaamiya safara la wuy tàkk ci biir bi
قد دفن لي ولو أن كل الورى أجمعوا على مطلب دونه مستسم فما إن يقال لماذا فعل والله لا بهذا سكن ولو أن كل الورى أجمعوا على مطلب نوره مسك ووفاء قالوا لي ماذا ووفاء لا وهل لا بآلتك
لا تضحوا ولا شمل يداكم ولا ضر من يشوفكم maa ngi départ na gàmmu gi maa ngi door maa ngi départ ak góor gu xam gu yàlla Seydou El Hadj Malick si ñàkk sikk si moog yi mënul ñàkk ñoo bokk sant xaaral ma xaar ba yële siggi siggi ngeen de siggi ngeen de ok papa jërëjëf ñàkk sikki si moog yi mënul ñàkk ñoo bokk sant adduna boobu la asamaan dama sotti asamaan suuf suukar xorom farma soxna dala Seydil Hadji Malick si ne bokk ci de Alaaji Malick bokk ci de Alaaji Malick bokk ci bokk ci léppi rasulullah yi daf ko ndar kepp damaa dégg benn bés benn waaye naan alaaji maali historien la woon ma ni ko da ngaa jàngul moo tax da ngaa jàngul ñaari branche ci réew mi ñaari nit rekk ci bind ñaari nit réew mii nu nekk xam-xam bi ñuy wax aaruf ñaari nit ci bind xaalima jaxate kala ak sida xaaji male kenn ñetteelu nañ ci jàngkat yaa ngi nii miraas sëñ aman njaay njaak way na ko waaw alaaji mari moo fekk miraas mu way ko kawkabul mu niir keneen te alaaji mari aaruf bi mu def ñetti branche yi ñetti branche yi waaye déglu leen ma waay ah yow dong la jëy Sidi Xaaji Malik aarut bi mu def ñetti branche la góor gi xaw bi ma jaxate kàlla dafa bind mu bayyanul ashkaal mooy xaalab nu muusas mu kalas mu jaddihi murtajiyan afwa rahimi abdihi xamdan li rabbi waabi'i lmiizaani man qad nafa shi'ra an alqur'aani Sidi Xaaji Malik yónnee ta ne su ngeen demee ne xaw bi ma jaxate na ma abal arudam ba damay jàngale xasri ji mu fas ci fakku daaira mu ñëw bàyyi xaw bi ni ko doomu soxna du àbb téere da koy taalif waaye bàkk na njaag ndaw li dellu si fekk si bi xaaji Malik yor kursam gu sew ga ndaw li xaar ba mu yeggal mu ne ko bàyyi xaw bi ne doomu soxna du àbb téere daf koy taalif mu ne nañ ma woor siñaalin jóg may mun a ñu wool ko ko mu sëf noppam ci sida xaaji Malik mu ne fa xamdan liman ma allama shi'ra ahmada alayhi salaamahu lmudamani sarmada fa yaa waabi'a almizaani balligh salaamati صلاتي عروض البر سرك أحمدا على زنة الأشجار والخلق والثرى مع الآل والقافين آثار أحمد أرتب ترتيبا دوائر خط شلق وأبحرها كل باختلافا لمن هدى أطل مددا وفق ووفر مكملا مهزجا رجسا رملا سرعا الى اليداء وسارع خفيفا مضارعا لربنا مقتدما مجتثا تقريب الاهتداء وان وسط الخط سكونا فسميه بمفرق وتد لا تجد الهدى. الله مالك باكوشي tëkkale ko ku la neex waaye bul juum ba dendale waaye moo ko dendal dëkk ci cuune
tëkkale ko ku la neex waaye bul juum ba dendale Alaaji Maalik bokk ci moo tax wax naa ci conférence bu way def fan yii nee naa leen tariqa tijaaniya ku ko fi bëgg a jëlee xam nga nooy def da ngay kaay ma wax la ko ku fi bëgg a jëlee tariqa cheikh da ngay topp digression yi toj jumaa yi toj jàkk yi toj gaaw yi maakale ko gaaw yi ci nekk yëpp tijaaniya ciy jullee ko woor ak naasir al xaq bil xaq ku def loolu mënoo fay jëlee tariqa tijaan yi tariqa bi ku mënta fexe ba jant bi tardé mënoo koo tardé xaaji Malik topp rasulullahi ca ba mu dee leer alaaji Malik ni topp naa leer bi ba mu di liir alaaji Malik nee na leer ga si jootal na boroomam juróom-ñaari téeméeri ak te binduñu jant ak weer preuve ci yàggu leer gi sayiduna muhammad mas na toog jibril ñëw ci moom njool makka ni ko jibril ñaata at nga am mu ne ko takkuma samay at waaye mën naa laa wax ay at yoo calculé xam ne xaw naa fi yàgg mu ne ko ñaata at la jibril ne ko man day am na benn biddiw bu daan fekk ci rona arash biddiw bi bu ma daan fekk balay suux dana am juróom-ñaar fukki at soixante-dix mille la bu fekkee ba suux ba lay suuxaat ba lay fekkaat am soixante-dix mille la gis naa ko soixante-dix mille fois yol makaree ni ko jibril gone nga ana zalika al kawkabu maa doon biddiw ba soxna si yow rek laay xaar xaaji Malik topp rasulullah yi dugal ko ci fukki géej ak ñaar fukki kiiraay ak ñaar alaaji Malik ni kiiraay bu ne xam naa ñaata at la fa njool makka am kiiraay bu ne xam naa nu kiiraay ba tudd ñu ne ko nu kiiraay ya tudd mu ne qudratu minnatu azamatu rahmatu saadatu karamatu manzilatu hidayatu nubuwatu ribaatu taatu lmawla shafaatu kiiraay yi jeex kiiraay bu jëkk ba fukki junni at ak ñaar ba ca topp fukki junni at ak benn fukki junni at ba ca suuf juróom-ñeenti junni at ba ca suuf juróom-ñetti junni at juróom-ñaari junni at juróom-benn junni at juróomi junni at ñeenti junni at ñetti ñaar benn kiiraay yi jeex ñetti ñaar benn alaaji maa ngi topp naa njool makka ba mu jógee ci kiiraay yi dugg na ci fukki géej ñu ko bindal mu ni baxrul mahabbati baxrul nadrati baxrul rahmati baxrul qudrati baxrul karaamati baxrul maarifati baxrul shafaati baxrul hidaayati baxrul juudi baxrul xikmati nee na géej yi jeex babalaa ji Mansoor ni wax na dëgg wa jaaba buxuuran ashratan mutadaaliya fa kaana nabiyan bi nubuwati aaliman wa aadamu bayna almaai wa tiini saawiya
Yeah.
bala ma ko firi ngeen wayaat ko ñu fi tas ba tànt bi daanu ma door ko firi allahu akbar mu ne waqat xaasa baalaaji Mansoor ne na xuus na moom rasulullahi fil anwaari ca leer ya xëyinan ab jamono musabixan muy sabal boromam rek nan yàlla kenn la wa jaaba dog na wa jaaba jéggi na wa jaaba traversé na bàyyam waxaatiaon la wax abxuran moom mu ne wa jaaba buxuran baxru mën nga ko jamaw ci abxur mën nga ko jamaw ci bixaar mën nga ko jamaw ci buxur wajaaba wajaaba dog na wajaaba jéggi na wajaaba traversé na boxoran ay géej ashratan yu di fukk mutadaaniya yuy way jegeyaantoo ci lëgg ak foor ak màgg ak fees dell ak leer mu ne Baye El Hadj Mansour si Malick Ibnu Ousmane xasida bi mi ngi ko def 44 toll ci 44 ans 44 la ko def ci 44 ans ca Madinatul Munawara ci yoor yooru altine ci biir rawdu rasulullah mu ne huwa moom rasulullahi ñu ne waaw si mu ne addawxatu mooy garabu ndañjantaan al uzma gu màgg ga ñu ne bàyyi laaji Mansour luy garabu ndañjantaan mu ne yudallu def na wute ker bi zillihi ci keru yonent yàlla Muhammad yamun nu day maye bi laa mën nin te du ñaaxaate buur fëri la di farante xalibaat am na ci rakkam ne ko jiitul te kaabayal la ko ñaan maara ay tamit lu ko Mansoor rawoon na dembalu tey Mansoor ñaan na mag ñaan Medina ñaan ca raw dug seex ba mu yegg seebi nun gise xaliba tuuti kabila ñëw sëñi koo ger ba tas alaaji Mansoor rawoon na dembalu tey far du jaami u ku mu doon moo di kan xanaa xalifa
tabarakallah mu ne yemun nu day maye moom rasulullahi bila mën nin te du ñaaxaate wa yan fii te day dàq setal wecc ci ab xol almaasiya ay mooy yàlla képp ku gëm yent yàlla muhammad gëm ngay dëgg leeram ya branche ci sa xol sa xol dafay fóotu ba set wecc dootoo dëkk mel lu yàlla bañ jazakumullah xayran
Thank you.
ne mooy garabu ndàngentaan gu mag def na wuti ker ku njol makka mayul ker nga ne ci naaj yi day maye te du la ñaax mukk te dafay setal ay mooy yàlla ay mooy yàlla njol makka mooy yemukaay ba ألم نشرح لك صدرك هو المنتهى ووضعنا عنك وزرك هو المنتهى بيتا ورفعنا لك ذكرك هو المنتهى ورفعنا لك ذكرك هو المنتهى وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب وحكمة هو المنتهى وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررت وأخذتم على ذلكم وإصري قال أقرنا فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين njol makka ci moom la ak mbaax yam moom la yàlla may bu mbindee fi dajee ëllëg mooy jëkk dekki moom la yàlla may bu ñu jàccee siraat ci kaw jahannama mooy ànd ak sagoom